Uh... an bikum ñoo lànk ñoo bañ nañu ba tëdd ca naaj wa génn ca mbedd ma mbooloo mu bari bay tuuru di rëj-rëj loo ba tax enquête yéen a kaay ne démonstration de force ñoo lank wane nañ seen doole ci doxum ñaxtu bi ñu doon xamal démb place de la nation jàll camp pénal ba ca avenue Cheikh Anta Diop mbooloo mu fa génn démb kenn xamul nu mu toll ànd di yooxoo naan bàyyi leen Guy Marius Sagna génn ci kaso gi waaye waaye courant bi cher na wàññi leen ko ba tax yéen bi ne juróom-ñeent fukki bés ak benn moom la Guy Marius amagum ca kaso ga turbine yi ne kaay ne ñoo lànk nag seen doxu ñaxtu bi lañ daan kaas lañ kaas lañ daan yuuxu lañ waat lañ daan sàkku lañ sàkku waaye li ci bees démb mooy ne buntu kaso ga ñu tëj Guy Marius Sagna fa lañ dem jaar ca buntu ba taxaw di yuuxu sargal ko gërëm ko na ko ñu ngi nii ci biti ànd ak yow yow nag yaa ngi foofu ci biir kaso gi xeexal ñu moo tax kon xamuñ sa pay yéen a bi na waaye hee takk der ya fa ñoo fees dell ba rembat ca buntu kaso ga nangu wuñ sax ku fa jege banaan yaa ngi dugg di gis Guy Sud Quotidien na waaye ñoom am nañ ndam ci seen doxu ñaxtu bi ndax kaso ga dem nañ fa donte dugguñ ca biir te mbooloo ma bëri na nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na makki Sall njiiti réew mi du def troisième mandat waxuma ko maître El Hadji moo ko wax nee na am na lu ko leer na Macky téeméeri junne xelam ak juróom ñent fukk ak juróom-ñeent dajut benn yoon muy samp ndëndëm candidat 2024 laaj réew mi déedéet nee na Macky du ko mës a def ndax moo taxaw wax kenn lexalul ko suukar mu ne maa ngi ci sama mandat bu njëkk suñ ma falaatee mooy nekk ñaareelu mandat mandat su ma paree may dem maa bind constitution bi kenn xamul sañ-sañ def ñaari mandat yu teglante man nag bi ma nekk mandat bu du am juróom-ñaari at ci laa nekk suñ ma falaatee ma def juróom mu nekk juróom-ñaari at juróom yu teglante ma dem lii la wax moom Macky xool leen vidéo baa ngi nii déglu leen lii la Maître El Hadji Diouf bi mu jano taskatu xibaar yi ci Sud Quotidien mu ne ñi nga xam ne fa ñuy wax naan ñaari mandat juróomi at loolu la loi bi wax yu teglante mu ne ñooñu jànguñ xamuñ dara bu ñuy foxantoo Macky ci boppam moo ko waxal boppam na maa ngi sama mandat bu njëkk bu juróom-ñaari at bu juróom mu nekk sept plus cinq ma dem jeexal naa waaye yaa xëyte bu ñu rey lii kay fa leer waaye nag ñi nga xam ne ñooy wax naan Macky benn bu juróomi at la def am na droit def 2024 xam nga ñan la mooy ñi nga xam ne faale wuñu askan wi seen intérêt seen bopp rek lañ nekk fu ñu amee xaalis su Macky jógee ci réew mi dootuñ amate xaalis dootuñ neexleeti dootuñ sàccati alalu askan wi te du mujj fenn ñu nag ñoo jaaxle dajaloo nag seen biir def ab kuréel bëgg jël Macky rek def ko otaas naan ko bul dem li nga def Sénégal nga ñëw ba yëf yi a neex nga naan da ngay bàyyi puusal rek troisième mandat dina na leen yéen ngeen a dof askan mooy taxaw si seen kanam ak kanam Macky na leen xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa du ngeen ko fi defee joxe seen bakkani bu ko laajee mais fa ñuy fontoo nit ñi seen intérêt rek jëwriñ ji Abdoulaye Diouf Sarr mel ni ko naan ko hé maître El ñun bokkuñ ci ñooñu ngay wax de dëgg la Macky lañ àndal waaye mbiru troisième mandat ñun d'accorduñ ci ñi nga xam ne nag ñoo nekk APR di ay responsable politique naan Macky am na sañ seen troisième mandat seen waxu bopp la du waxu APR ñun cadre APR yi am na loo la génn naag loolu baaxut mën naa yee fitna ci réew mi kàddoom yaa ngi source ay yéen a kaay waa grand place yéen a kaay na ko sa waa ji Macky Sall du nangu mukk ay responsable yu ko wër bëgg ko sacrifier dugal ko ci troisième mandat boo xam ne gàcce la koy jural génnin bu ñaaw ci réew mi loolu Macky du ko nangu dofut maître El Hadj Diouf na leen man maay avocat am bu njëkk défendre naa ko guddeeg bëccëg subaak ngoon waaye dëgg ku ko gis wax ko lii duma ko ci défendre ndax ab dof rek ko koy défendre wala ku topp sa bànneexu bakkan su ma doon moom nag Macky ñi ko wër noonu di wax troisième mandat nag xoolaat seeni mbir kaj ji dàq ca biti ndax duñ ko digal lu baax 24 heures fi mu toll daal moo war a wax leeral askan wi coow li jeex ndax yow yi fa tey xel a ah, yow seet tal am na ñu bokk APR ne Macky war ta def troisième mandat mu dàq leen kajji leen am ñoo xam ne nee war naa def troisième mandat te dàqu leen kajjut leen loolu moo tee xelu nit ñi dafa mel ne Macky fa bëgg a xool askan wi fi ñu toll am ñu mu yebal ñu wax bu yëf yi nooyee rek mu ne voilà candidat la su dëgëree mu allière su yeboo nag mu allière moo gën ci moom de na laaj Ablaye Wade nañ ko defoon wenn 3 juin c'est du quotidien ne Macky sax fa am ko doy ndax ëttu attekaay bu CEDEAO yi nee nañ ñu jëfee li CEDEAO wax seen ëttu attekaay ba loolu nag fa ñaaw mais umra ren màkka annulé nañ ko du xam a yaaw seetal feebar bu bon bi coronavirus moo tax ambassadeur bu Arabie Saoudite fii Sénégal leeral yëfi ne wér-gu-yaramu askan wi moo jiitu ci lépp te ajug màkka ren gi fii juróomi at la coronavirus bi bu fekkee jàngoro ji jeexut fajuñ ko ajug màkka ren du am parce que yonent bi sax lool la ñu digal dëkk bu jàngoro am soo fa nekkee sax waroo faa génn ba jàngoro ja jeex kon dajale nit ñi màkka ñu bàyyi ko ci réew yëpp ci àdduna bi loolu mooy tasaare jàngoro ji te boobaa nag mu te suñ diine ju jàmm lay def ci doomu aadama bi yi leer tàggat yaram Sadio Mané nee na yu bëri fi mu toll nii Liverpool la ñu supporter yaa ngi ci Le Soleil yéen a kaay ñuy supporter Real Madrid ak Barça seen classico bi yegg si na retour bi ca biir Real ku mbuqi sa ci ñoom ñaar nag boo moytul nga jël championnat bi yàlla na ko Real mbuqi stade yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom sunu lamb yéen a kaay mooy arbitre yi arbitré ci lamb fa ñoo geraw neneen lañ leen di jox daal ndàmpaay fa tuuti nañ ko yokk yéen a xam nga luñ leen di jox benn arbitre bu nekk ñaari yoon arbitre liñ leen di jox fo tuuti nañ leen ko yokkal yéen a kaay bi ne CNG mu toll nii Aliou Sarr am na problème carte ga jaxasoon na fa mbër yaa ngay ñaxtu na na dem arbitre yaa ngay geraw ñaari ji na lu mën li ma leen di digal daal yéen arbitre yi mooy dee leen jege mbër yi sarax yi leen sëriñ si digal ngeen laaj sarax mën ngeen a lekk sarax de ndax ngeen ñàkk sonn te ñoom seen sarax ay junne ki millions yu bëri la waaye ku ko lekk de boo woyefee bopp mën nañ la faa doxee saraxal